murid bi nga la xéraw lul ma ngi lay waxati ku tax nga yéema sëriñ tuuba ak ñooñam ñaati uzu billahi minashaitaanir rajim بسم الله الرحمن أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bis indi ñu ay leeral mhm. ci dalukaayu xale yi nga xam ni mucc ayib la mhm. lal yi di lal yu mucc ayib mhm. ay leeral waaw comme niñ ko xamee rek xale yi moom comme xam nañ ne jàng dafa xaw a metti bu ñu jàngee ba pare laaj nañu dallu dallu bu bu am solo boo xam ne bu ñu jógaatee seen xel dina mën a ubbeekuwaat ñu jëmaat ci njàng mi ñu defaral leen ay barab ay lal yoo xam ne dina dina dina dina tane rek ndax lu mu gënoon a gën-gën ndax euh, doomu daara moom lépp lu lépp luñ koy defar rek dafa war a méngoog alxuraan te alxuraan moom lu baax lu gën rek moo méngoog moom kon euh, daara moom loo ci def lu mu baax baax rek doyul kon fii mooy seeni dalluwaay defal leen tamit loo xam ne léeg-léeg bu bu tàngaay bi dikkee dina leen mën a xaw a seral tuuti matlaay itam mu tubaarkaal la. waaw matlaay itam yu baax lay doon. mi ngi noonu. Mm. ndax xam na nañu ne matlaay itam dafa am solo ci wér-gu-yaramu xale. Mm. ndax am na nooy tëddee rek léeg-léeg boo jógee sa yaram man naa métti wala mm. ñu demee noonu moo tax dañuy bàyyi xel bu baax a baax seen i seen i tëdduwaay. donc ngeen def ko étage itam. Mm-hmm. nga xamante ni bii woon jàpp premier deuxième. bii ba mm-hmm. troisième. Mm-hmm. loolu euh, di loo xamante ni. dana may sa xale yi. kenn ku ne mën a noyyi. am sa digganteeg sa morom espace ni. sa xel dana a mi ngi noonu mi ngi noonu loolu loolu mooy liñ ci liñ ci jublu ku ci nekk mën a tëdd tëdd bu yaatu mm-hmm. waaye ku ci nekk itam xam nañ ne euh, xale yi bu ñu xawee kii rek benn benn lal yi mën na gën a jël espace yu bare bari ñu defal leen ko yoo xam ne dina gën a yaatu ci ñoom seen i tëdduwaay gën a méngoo jamono dolli ci mi ngi noonu <laughs> masha Allah alhamdulilah auzu billahi بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم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 قاطع يوم ينفق في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسجرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أقابا الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من syarrin waswasin kanas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minan jinnati wan nas Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh barakatuh ngi am di ñaanal xalif sénégal ku lu murid cheikh mouhamadul muntaxa mu yàgg fi loolu ci ànd ak wér ñaanal ko itam mbooleen njaboot ak cheikhul xadim gépp waaye di yëkkati kàddu nuyoog siyaar teg ko ci loxol nag mbooleem ñi nga jàngale téere bi mooy seen métier mooy seen yitte itam guddeeg bëccëg di ñaan yàlla lam ca diggee woon ak lam ca waxoon ni ñun yàlla ñoo ko wàcce te itam ñoo koy sàmm yàlla sàmm képp koo xamante ni da nga yëngu ci alquranul karim mbokk yi tey nag ñu ñëw fii ci Dakar euh, fa seen séq jotaay nemmeeku sax la ñuy wax euh, def grand reportage boo xamante ni dañ koy amal ci benn ci daara yi nga xamante ni daaray alquranul karim la ci daaray internat waaye tam ñu ñëw ci kenn koo xamante ni ci njaboot ak Cheikhul Khadim la bokk su ñu ko waxee soxna la itam waaye taxawaayam ak pas-pasam ak ak dogoom may na ko ñëw fii ci dakaar ngir li seytaane mën a yàq moom mu def euh, juróom-ñettam ba fukkam ngir mën koo defar ndaw ñi kon ñu fas yéene séq ak moom jotaay mu di soxna jaara Bousso soxna maam jaara ginnaaw bu ñu nuyoo si pare dañu bëgg nag nga présenté wu ñu soog a nag bugg ci waxtaan wi alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala sëñ Moussa ñi ngi lay nuyu di la delloo ziar tey nuyu sa mbokk mi ngi àndal di leen jaajëfal bu baax a baax ci jéego yi ngeen def ba ñëw teew si fii ci daara soxna jaara buso man nag eh, sama tur mi ngi doon mam jaara buso eh, ñu gën maa xamee nag ci buso shérif mm-hmm. waaw juddoo Touba màggee fa yaroo fa mm-hmm. yàlla dogal euh, borom kër moo ma indi Dakar. Mhm. Euh, ba ñu mujjee nekk fii ba sos fi daara ji incha allah. Mhm. Mhm. ñu bëggoon a xam maam Diarra Bousso. suñ ko waxee. xel yëpp day dem ci euh, njaboot ak sëñ Bousso bi. sëñ Mbacke Bousso ba waaw sama wajur bu góor mi ngi tudd Serigne Fallou Bousso. moom Serigne Abdou Moutalib Bousso. Serigne Abdou Moutalib ak sëñ Bousso Ilimane yaakaar naa. ñépp xam nañ leen ci ñoo doonoon imaamu jumaay Touba. Mm-hmm. yal na yàlla yokk seen yërmande fa ñu nekk. allahumma su ñu doon ñu nekk gox bi. Mm. mooy fan. waaw fii mooy Sud Foire mu ngi dend ak gën a dend ak euh, fi ñuy wax Sicap Foire itam. Mm-hmm. Euh, deux voies Liberté si yi. Mm-hmm. foofu yëpp ci ñu ngi nekk ci dig-digal boobu. Euh, tey ñu gis nga ubbi daara yi ñu bëggoon xam lan moo tax nga ñi da nga hmm. jóge Touba waaye nag eh, borom kër moo la indi di fee jaamu suñu borom. Hmm. waaye nag am na luy nelaw ci yow soo déggee sa présentation loo xamante ne. Hmm. mënta ñàkk kon lii am eh, nga eh, jóg taxaw teem bu ubbi daara. lan moo la inspiré ak itam xalaat bi ak nan nga ko taxawale yomboon na wala yombut. waaw niñ ko xamee rek yàlla dogal na ne daara moom ci la ñu judd. ndax dañuy judd fekk suñu wayjur yor daara di jàngale. nekk ci jàng ak jàngale boobu ba léegi ñu judd ci loolu màgg ci ñi ñu wër ñëpp itam wax dëgg yàlla nekk ci jàngale alquran ak di ko jàngale kon avant ñuy ñëw fii tàmbali woon nañ jàngale ci daara yi sunu way jur boobu euh, ba yàlla dogal ñu ñëw fii bu ñu ñëwee itam ñu tàmbalee ci daara yi sunu borom kër mu nekk parcelle mais foofu yàlla dogaloon euh, daara yi góor la gënoon doon jigéen ji tuuti lañ woon ñu nekkoon fa di ca jàppante jàppalante ginnaaw bi nag lañ na itam am nañ wàllu mag a mag a mag ci wàll wi mhm. rawatina ci jàng alquran ndax euh, dafa mel ne ay jamono euh, góor ñi lañ daan gën a xalaat pour nga gis ku jël doomam bu jigéen yóbbu daara euh, xawoon na jafe donte léegi alhamdulilah nit ñaa ngi ci gën a yeewu xam ne jàng moom ni mu waree góor noonu la waree jigéen jigéen sax mën nañ ne buñ mënoo woon a wax mën nañ moo war a gën a jàng ndax ki nga xam ne mooy mooy taawu njaboot mhm. njaboot ci moom lay jaar moom moo war a gën a baax mu war a gën a jàng ndax mu mën a teg euh, njaboot boobu ci ci yoon loolu moo tax ñu am xalaatu nag daal di ubbi daara ji ubbi woon ko ci yàlla dogal tey la am ñaari at waaw ndax ñu ngi ko ubbi woon le 5 mars 2021 kon tey ji mooy ñaari atam insha allah rabbi mm-hmm. sant yàlla bu baax a baax euh, ñaari at yi euh, jàng jàngale mm-hmm. ak daara yi daa jàngale rek ak dañuy yar mhm. waaw jàngale ak yar. Mhm. ndax comme ni ko Cheikh Khadim waxee rek euh, jàng mu àndut ak yar moom amul solo. Mhm. njàng mu àndut ak ragal yàlla amul solo te ragal yàlla ak yooyu yëpp mu ngi sokkalikoo ci yar inna alladi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi alamin wala afnal fulan kon boo jàngoon ba jeexal yépp itam te amoo yar sa njàng du feeñ kon li ëpp solo mooy yar bi kon dañuy boole di leen jàngal waaye di leen yar tamit ci. yarub lislaam mm-hmm. euh, ci programme bi nga tëral. ñu mm-hmm. bëgg a xam programme bi euh, naka lay déroulé ci daara ji. waaw programme bi comme niñ ko xamee rek ni ko daar yu bari defee fajar gi la ñuy jóg 5 heures euh, moins 15 bu ñu préparé wu pour ñu dugg ci classe yi jàngale ba 7 ñu pause daal di dallu tuuti 9 heures ñu jógaat nekkaat ci classe yi diggante bi ndekki jaar fi ak yooyu ngir mbàkke mbàkke ndaw yi. Euh, ba 13 heures ñu wàcc bu ñu wàccee itam dalluwaat ak euh, xéewal yi ci diggante bi 15 euh, heures ñu gontu ba 18 heures ñu wàcc bu ñu wàccee 18 heures itam dalluwaat tuuti xale yi jël seen ay njoganal ak yu demee noonu bu ko defee timis jotee ñu julli timis ba pare dugg def li ñuy wax jàng marax mhm. jàng marax ba gee ñu julli gee après nag ñu waajal reer bi daal di préparé wu tëdd incha allah. Hmm. Hmm. ñu gis itam euh, matukaay yu am solo nga jël ko. ci wàllu dëkkuwaay hmm. wàllu euh, espace bi. xale yi suñuy jàng ak yu mel noonu. Euh, loolu tam lan moo tax loolu. waaw li ko waral mooy léeg-léeg dañuy xam ne mbooloo mi léeg-léeg bu xawee bari yenn bari yi mën na laa indil léeg-léeg xaw a jafe-jafe. te xale yi léegi xam nga ñu baree bari lu leen fatt yomb na lu leen sonal yomb na moo tax xaw leen a féexal tuuti daf ciy baax ñuy xaw a sore tuuti ku ci nekk di mën a féex di mën a li nga nekk nga mën cee concentré bu baax a baax loolu loolu moo tax ñu di leen euh, yaatal dëgg la ñi soxla fi mu ne nii jamono ji sax bari na waaye ñu yemale ni ko fi ngir lépp rek euh, gën a mën a am ak yaatu. Euh, ndax jàpp nga kon ëllëg yaatal. Mhm. wala ubbi yeneen bërëb. ci mhm. feneen. waaw incha allah moom loolu moom mooy mébét bi ndax ñu koy sàkku bari na lool waaye nag li ci ëpp solo daal. di ñaan borom bi rek mu may ñu suñu barabu bop bo xamne dinañ ko mëna défé nañ ko bëggé ba man fa jël nombre biñu mëna jël biñu soxla ci ci liñu wara jël waye léeg-léeg da ngay am way yo xamne euh li nga bëgg lepp do ko fa mëna def motax faaw da koy mm, limité rek ba ben jafé jafé bañ am inshallah allah ndax suñu seetlee Dakar location jafé na fi metti na fi ci itam euh, fi di bërëb lu bo xamanteni ni mm. set gi mm. so duggé ak itam euh, euh, taxaway bi nga xamanteni do donga yi den condition yi nek mhm. walu xewul gi yu mel nonu ñu bëggoon nga dikkalaat ñu fofu waaw do am solo mhm. do am solo deug la xawna jafé jafe jont ñi ngi sant borom bi ndax suñ borom mom japp naan lepp lo nek nekkal ko ca ta selal ca mom mo ci mo ci mo ci japp ndax leg leg da ngay xamne suñu borom rek nga nekké waye bu doon luy génne ci daara ji man nañ ne daara du taxaw waye nak ndimbalu sun borom bo xamne fo xalaté xalaatewul rek fa lay jógee moo mm-hmm. ciy ànd ndax ku ne xamne Dakar location yi mom metti na lol sax lol dundu gi rawati mm-hmm. te yor ay xalé yombul mm-hmm. ndax bëggo xalé yi di am ben euh, xalaat bu ñuy am sen xel ba mu leen yakal senu njang wala ñuy xalaat seeni kër lu bare bare ba li nga xamne mo leen fi tax leen di manki motax fo tollu rek da ngay fexé ba di jëm xalé yi nekk ci ay condition yo xamné yu baaxa baaxa baax lay doon ba sen xel di dal ba ñuy mëna jang comme niñ ko comme niñ ko bëggé di leen jëlal ay ño xamné moy ñi leen di toggal ñi leen di topato ñom sen bop ñi nga xamné ñoy sétal walu kër gi ñi nga xamné ño leen di fotal ñi nga xamné ño leen di jangal lool yépp ku ne xam na ne euh, booy xool lég da nga naan euh, attendre ko sax wul waye nak sante borom bi rek mi ngi ciy mi ngi ciy jàpp suñu borom mi ngi ciy jàpp bu baax a baax. Mhm. Mhm. Euh, mi ngi ciy jàpp euh, ñu gis ni maa ngi laaj léegi soxna si. Mhm. saar yi nga xamante ni dañu mel ni soxna maam jaar Bousso ak yu mel noonu. dafa am bët bu leen euh, askan dañu xaw a metti léeg-léeg nga dégg. léeg-léeg ñu ni kii nit ñi daal tax a ñimeeg benn ñimeeg yi nga xamante ni. yéen sax a am ak yéen relation pour wax ak yu mel noonu. ndax ni ni ngeen di comporté woo. ndax loolu mën nga cee gindi. waaw loolu moom ku ne xam ne diine moom ba mu sosoo ba léegi musta yomb mhm. diine moom du ma sa yomb te ku ci nekk itam balaa muy balaa muy neex fokk nga dégg lu ne mhm. waaye da ngay ànd ak gëm-gëm ànd ak taxawaay ànd ak euh, roy sunu mag ñi nga xam ne ku ci mel ne sunu maam soxna jaare mi nga xam ne moom lañ tuddee daara ji ku ne xam na ne ci zahir bi muy génn àddina ndaw la mën nañ mhm. ko waaye gis nañ lim liggéey loolu gëm-gëm la gëm-gëm la euh, li ngay dégg ak li ngay gis ak yëpp nga bàyyi ko ci sa ginnaaw waye yow nga fexé ba am ak ubbeeku go xamné ne nit ñi duñ la ragal ndax comme yow it da nga yor lo xamné ne da nga fas yéene mu tasaaroo da nga fas yéene ñeneen jot ci waro tejj sa bop ba kenn du la ndax bu boba itam am yow li nga wara jallalé jàllale moy euh, waxu borom bi tabarak wa taala digle yonte bi alayhi wasallam ak cheikhul xadim ni mu jàngalé am noy tejjé sa bop ba euh, du mëna a rek loolu dootul doolu am solo kon ñu yaatal xol xol yi rek toj xol yi te xam ne àdduna moom euh, yombul àdduna dara yomb ci ñi nekk ci lu baax ni ngay déggee lu jafe boo nekkee ci safaan itam noonu la kon mm. yow nag moom na la wóor ne li nga nekk lu baax la lu gën la te it yaa ngi ciy yaakaar fayu borom bi tabaraka wa taala loolu rek mooy li nga xam ne mooy li am solo mooy tax lu mu metti metti rek boo xalaatee euh, digg yi ci suñ borom def day daal di oyofaat bu baax a baax a baax ci yow. sa diggante mm-hmm. xale yi. Mm. di ñoo xamante ca xale kenn ku ne xam ne ni ab yëngu da am mm-hmm. waaye fexe nañ man ba li ma gis mm-hmm. muy kersa gi nekk ci xale yi macha allah yàlla leen yàlla lafal cat mm-hmm. ak itam euh, ñaari at liñ doon tari saar yi ni mu kawee ak tajwid bi ak euh, lépp li nga xamante ni njàng da koo indi lépp ñu koy matale loolu nag euh, lan mooy secret waaw secret bi de xanaa bariwul lu dul bëgg gi jiitu ndax mbir mi moom ni may wax sama kat dama len koy wax euh, dara dafa metti ndax liggey la bo xamne jafena say nelaw du doy do noppalu do ko tal euh, leg leg sa nga nek ci febar do tal teud ndax yenen ak yenen ak yenen waye boko beugé lolou yep day day day day day day day day boyef mm-hmm. waye nak andak nak ginnaw dimbalu borom bi tabarak wa taala ak wayjur yi nga xamne ne ñooñu si tàggat sunu borom kër mom mm-hmm. mi nga xamne moñu dolel Euh, wax dëgg yàlla lépp loo xam ne gis na ne lu lu baax la ci xale mu di ko mu di ko mu di ko indi di ñu ci jàppale euh, ba nga xam ne euh, nekkinu xale yi xale yi dañuy dañuy dañuy dañuy mel comme dañu nekk seen ay kër mhm. ndeysaan léeg-léeg bu ñu demee ay fees sax da ngay dégg seen waajur yi di wax ne dañu yàkkamti ñu bis ak yu demee noonu mais terewul nag yooyu yëpp dañuy kaf ak yow di reew ak yow bu ñu wàccee tey ñu ngi sa néeg di xalaxaloo mais lépp nag ñu ànd ko ci yar ak ci teggin ak ci dal ndax ku ne xam na ne jigéen moom ak lu mën a xew euh, am na ci loo xam ne daf ko war a euh, àndaale muy yar boo xam ne nii yar bu baax a baax lay doon pour ëllëg ay njabootam mu mën leen cee teg bu baax. ci mm-hmm. mm-hmm. euh, lu am solo. Mm-hmm. waaye nag ñu bëggoon nañu ci beneen question muy daara ji. tey. ku nekk fenn bëgg ñëw ci daara ji yan condition ak fan lay jaar ba mën a agsi ngir doo mën fee jànge waaw euh, condition yi bi ci jiitu mooy xale bi na am juróomi at gën nga néew euh, bu ko defee nag boo jox jokkoo ñun incha allah daañu la jox yeneen tegtal yi nga xam ne moo ci moo ci aju euh, incha allahu rabbi juróomi at daal gën ngaa néew gën ngaa mhm. mm-hmm. bari itam bu mu weesu fukki at mhm. incha allah wala mu waaw mi ngi noonu di indi yeneen yeneen af jikko ci ci ci xale yi di ngi noonu mel na ni xam ñooy jàngalekat yi tam. Mm-hmm. yëkkati leen ay kàddu yu seere. Mm-hmm. jëmale ko ci sa jëmm. ay xale yu yu ñoom tamit yu baax yu am gëm-gëm yu ma jàppale tamit ndeysaan euh, dañuy mel dem ba mel ne sax ñoom ñoo ma gën a bëgg ji ndax yéene buñ ci am ndax xam nañ li yombul benn nit mënu ko mm. man doomu mënuma lii ak yeneen yi nga xam ne mooy nekk sa bopp ak moom nga warloo boo amutoon ñu la ñoo bàyyi ñoo xam ne ñoom it am nañ gëm-gëm boobu am nañ bëgg-bëgg boobu am nañ yéene jàppale googu kon kon du du du mën am du liñ ci bëgg do ko ci amé noonu kon ñoom it ngi leen di ñaanal rek ku ci nekk ci ñom dem ba am sa yëfu bop niñ ko bëggee ñu gëna yok yokk téré borom bi tabarak wa taala ci xolu doomi julli di inshallah ben message ngay lancé jëmale ko ci euh, parents les fi muy waajur ndonga yi. Mm. ak itam ñi nga tay ji ay soxna lay ca wara def ni sa euh tout waaw parents yi xanaa ñu gën a góorlu rek di gën a bàyyi xel daara yi di gën itam com euh, am ci daara yi ndax yu baree baree bari léeg-léeg day day day yàq jàngu xale te waajur yi ñoo koy ñoo koy ñoo koy waral ñu xam ne daara du kër dëgg la xale bi dañ ko war a teg ci condition yu baax a baax waaye xale bi li ci ëpp solo boo ko woowee wala boo ko seetijee di ko laaj fan nga toll ba yaangi jang gor naka jang mi gawal jang gawal mokal gawal li mais na di def ba yaangi lek lekk na fi genn fi ay euh, yenn yo xamne day indi yokkat ci xale bi wala day tax xale bi di xalaat ne ah daara dafa wara metti wala dafa am gi wala gi ta ñu bayyi xel nak ne bari na daara yu dak ay kër mm-hmm. ndax fimne jamono jamono soppeku na bu ba ta yi ñi ngi gor muy man muy samay morom yu bare baree bari ñu ma xam ñu nekk ci ay daara di xool di xam li ñuy daj ngir seeni daara nekk ci ay conditions yu baax ngir seeni xale ñu di leen teg ci ay ay ay ay yoon yu baax kon nañ jàppale nañ jàppale daara yi la ngay uh, laajee sa xale dugg na fii génn fii uh, boo ko amee sa saakoob ceeb yóbbul ca daara ja boo ko amee sa nangam yóbbu ca daara ja nga xam nañ ni dund gi cher na uh, waa daara yi dañuy góorgóorlu rek mais metti na te amul kenn ku leen di jàppale ku dul Euh, seen ay moyens ni bopp ak euh, ndimbalu borom bi tabarako wa la hmm. kon nañ ci nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo nekk si daara itam ñu muñ ndax daara moom boo ci nekkee faw nga muñ hmm. ndax lu ne ngay gis waaw ndax euh, xale yi ni ñuy baree noonu yor ay jikko yu yu fasanti ko yu wuute way jur yi noonu la mel hmm. léegi nag loolu dal ak tey ak muñ moo la ci moo la ci dimbali ba nga mën a dékku yu baree baree bari yi nga xam ne mooy ñëw ci sa kaw Euh, ak ju demee noonu te way jure xam ne itam xale moom fu ne la ko fay dal wala lu mën a doon fa la koy dale mhm. ndax jàpp naa ne nit bu nekkee kër way juróom bu waree feebar dina feebar maara day taali yàlla nañ ci yàlla euh, dimbali bu mu am ci benn daara waaye bu naree faatu sax euh, ku ne fa la yàlla dogalee nga war a faa faatu fa ngay faatoo kon dafa am yoo xam nit ñi dañ ko dañ ko war a bàyyi xel xam ne mm-hmm. daara ji ak kër gi benn la mm-hmm. nit ki moom fi nga nekk rek fi nga nekk lépp lu lay dal fa lay dale yooyu yëpp mu yoo xam ne way jur dañ ko dañ ko war a bàyyi xel di ko comprendre ngir mën a oyofal yenn soxna daara yi wala sëriñ daara yi bu baax mm. waaw daara ji fi mu ne nii juróom fukki xale ak juróom ñoo ngi fi mm. ñoo xam ne fii lañ dëkk am na ay ñenn ñenn ñun tuuti rek ñoo xam ne moom dañuy dañuy yendu ba ngoon ñu ñibbi waaye juróom fukki ak xale yi ak juróom ñoom fii lañ fii lañ dëkk fii la seen lépp nekk mm. incha allah waa di leen sant yéen bu baax a baax tey sant bu baax a baax a baax nag borom bi tabaaraka wa taala moom mi nga xam ne moo ñu jagleel lii ndax liñ koy waxee rek alquran moom ak jagle la te comme borom bi nee na ñooñ alquran ñooy ay ñoñam yàlla ñu ci boole yàlla ñu saxal ci liggéey bi yàlla ñu bëgg wala ñuy gis wala ñuy ñee leneen lu dul ku nekk ci ci ci alquran ndax suñuy jur ci lañ ñu tàggat ñu di leen sant bu baax a baax a baax ndax ak lu mënoon xew boo amee ay way wayjur yoon bu ñu la jëmalee rek bu la yàlla dimbalewul boobu ngay jëm kon ñu ngi leen di sant bi nga xamee ne ñoom ñoo ñu tàggat ci yoon wi Euh, di ñu ci euh, nàmpatal di ñu ci dimbale ba yàlla dogal itam ñu amaat borom kër boo xam ne ci loolu la ne moom it mu jàppale ñu ci lool lool lool ñu ngi koy sant bu baax a baax di ñaan taxawaayam gën a yàgg di ñaanal kàttanam gën a bari ba yéen yim am ci daara ji moo xam ak daara góor ñi ak euh, daara yëpp yu muy taxawal rek suñ borom defal ko ci kaw njor ñu sant nag ñi may jàppale ci daara ji jàngalekat yi liggéeykat yi ñoom ñëpp. ndax benn loxo rek mënul dara mm-hmm. kon maa ngi leen di sant bu baax a baax di sant way jur yi ndax euh, doom dafa sax ci xol mm-hmm. ki nga xam ne am na euh, muñuk bàyyi doomam at wala lu ko jege jox la ko bàyyi la ko laaju la xoolul nemmekuwul kooku amel nga ko sant bu rëy ñu ngi naan rek suñ borom mu dimbali ñu ba yéene yi tax ñu indi leen fii euh, suñu borom defal ñu ci lu kawe njort ba ñoom ñëpp ñu mokkal téere bi borom bi tabaraka wa taala ci lu rafet ak gaaw. ñoo ngi delloo ziar. Euh, tey ñu ñëw fii nag euh, fekk leen ci daara ji nga xam ne mooy jaara daaraay soxna jaara. Bousso ngeen soxna jaara Bousso ngeen yortu tànk di leen jàngal njàng mi ñi fi jot a jaar tari allah njàng mi rafet na leer na ñu bëggoon a jëkk a dikk ngeen dikkal ñu seen diggante yéen jàngalekat yi ak soxna su tedd si nga xam ne mooy soxna maam jaara Bousso seen diggante lépp ci rafetal ak itam yërmaane yi dox seen diggante moom. waa maa ngi leen di nuyu di leen ziar di sant yàlla teg ci sant sama ñaari waajur teg ci di sant euh, soxna jaaro bu sax li tax nag liggéey bi gën a rafet xoli ànd ci la bokk parce que su xoli àndul woon dara du sotti parce que nee nañ xol mooy nangu cër mën a nangu su xol bañee rek cër day bañ kon na xoli moo ànd moo tax liggéey bi mën a jaar yoon xale yi mën a tegu ci yoon ñu mën a déggoo ñun jàngalekat yi yàlla def na ne nag ñu boo ñu bokk daara ji bokk li ñuy liggéey bëgg ko tamit te yàlla rek tax ndax alxuraan ku ci nekk rek yàpp naa ni ci yoonu yàlla nga nekk te waxi yàlla moom ku ci nekk gëm naa ni waroo sonn waroo taay maa ngi sant tamit euh, samay moroomu jàngalekat taa awaloo taa ulay di sant eh, sunu tata soxna jaara parce que moñu yaatal suñu lu won tay duñ fi am place ba tay meuna ñew tok di meuna jangal xalé yi ba man fe wax di jël parole lepp mom la ñu koy di ñaanal daaraam ji lim ci bëgg yalla na ko defaral yalla bayiko ci kanam xalé yi ba ci kanam kanam inshallah rabbi di sant tamit borom kërëm bu baax mom tamit sétanuñ ben yoon parce que mom tamit su du won mom tamit gëm na ni euh, soxna du am euh, benn courage bi nga xamni dina mëna yor ay jigen di len jangal di sant tamit mom asalaamaaleykum. daara ju mom vraiment daara bu baax la te yoon nañ soxna bo xamante soxna bu baax la buñu bëgg torop fonk ñu tek ñu suñu place ba warna lepp lo loo buñu bu ñu ko defloowee rek dañ koy def té ñu ngi koy sant bu baaxa baax parce que li yombul. yombul ibbi daara dugal ci ñaata xale di leen toppatoo lépp luñ bëgg nga leen koy defar yombul daal ci dëkk yu ñu nekk moo tax dañ koy ñaanal rek gudd fan ak wér gu yaram mu nekk daara bu baax nag daara bu baax vraiment xale yaru nañ lépp daal loo xalaat daal mi ngi ci biir daara ci mm. moo tax suñu seydaa bi dañ koy ñaanal rek yalla baye ko fi ba ci kanam parce que baxna na te lu ñu won lo xamanteni ni ñun tay jii nii am nañ sañ-sañ ba fuñu genn won ko suñuy morom pour ñu mel ni ñun assalamu alaykum wa ngi sant avant tout man man soxna si doon na soxna si nga xamante ne soxna su baax bu uuf njaboot ku am yërmande si doomu aadama ku ouverte ku jàppale ay liggéeykatam boo ñëwee fii munoo xàmmee kii mooy togg munoo xàmmee kii mooy fobeer munoo xàmmee kii mooy zayda bi hmm. parce que dafa boole ñëpp uuf leen yor leen am yërmande di comprendre doomu aadama hmm. la mu koy ñaanal yàlla nag mooy daara ji nga xamante ne samp na ko mu dem ba nekk ay daara yi daara ñu ngi leen dégg fépp ci àdduna bi te day am sax incha allah parce que dafa nekk nitu alxuraan lépp lu muy def dafay dëggu mu ko si yoon. kon nag nit boo dëggoon nekk ci lu neex yàlla lépp loo def day leer te yàlla di la dimbale foo tool li may wax waxuma ko ngir jëm caméra bi ma ti wala daal mais parce que dafa am mooy lu nekk si moom kon nag liñ koy ñaanal boobu bi nga xam ne am na ko ci daaram ji yàlla na dem ba am ci lu kawe njortam xale yi tamit yàlla dimbaleen ba alxuraan di ñuy def ci ñoom mook ba seen parents yi kontaan si incha allahu rabbi di ñaanal tamit boroom këram muy baax ma moom tamit yàlla na ko yàlla may fan bu gudd ak wér gu yaram waaye ko si kanamu njabootam ba si kanam kanam incha allahu rabbi may ñaan yàlla nag jikko yu nekk soxna jaar tamit ma dem ba jël jikko yooyu maa ngi koy jéem nag mais nag soo teemul ñaan yàlla yàlla defal ñu jaam ñu ñëpp raxasal ñu xol yi ñëpp ñu booloo doon benn ba liggéey bi ñu commencé jëm ci kanam incha allah rabbi. jikko ji la gën a neex ci soxna jaar. gën a neex soxna jaar mooy ni muy ni muy jàngalee daal. ni muy joxee bi ne neex na macha allah. Hmm. wax dëgg yàlla surtout taj wi di ñuy def yooyu yëpp. maa ngi jéem roy si moom nag pour ma jéem a mel ni moom incha allah pour man tamit ëllëg yàlla dimbali ma ubbi sama daara. Hmm. ma jéem a mel ni moom incha allah. <laughs> gis nañ pour tànk yi macha allah. Hmm. Euh, ñu ñëw. Hmm. kenn koy yaa ngi yor sa téere di jàng ñi nga xamante yi tam gis nañu leen. yi ci lépp nga xamante ngir ñu mën a mokkal alxuraan yi téere suñu borom bi waaye tam maa def ñoom yar diine hmm. waaye tam def ci ñoom njàngaleem Cheikhul Khadim hmm. waaye tam ban doon ay saalihaat yi nga xam ne hmm. eh, sa eh, eh, turandoo seen wala soxna jaara moom lañu moom lañu roy xalaatu fii nan nga ko amee muy muy ñu def ni jàng ni nga xamante ne ko yàlla mu ci yooyu loolu waaw xalaat bi niñ ko amee rek mooy xanaa xam ne rek moom comme ko waxee sànq bés bu nekk rek war nañu xalaat nuñ ko gën a rafetalee waaye nu ñu ko gën a sàmmee waaye nu ñu gën a euh, tegee xale yi koy jàng ci ay conditions yu baax ndax loolu def ci am solo xale bi nga xam ne moom nga bëgg mu jàng mokkal alxuraan ku ne xam ne ne yombul ndax alxuraan yombul euh, ñu koy bëgg a dugal nag ci ay dënn xale yoo xam ne euh, ay xale yu ndaw lañ il faut nga teg leen ci condition yoo xam ne seen xel dina dal ba li ngeen leen di jàngal mën a mën a mën a dugg ci lañ amoon na xalaatu seetam gis nga xale diggante bi am ay séparation kenn euh, mm. euh, euh, ngi noonu waaw ndax xam nga boo tax gisee sax looloo tax ñu limité nekkee nu xale yi ci daara ji ndax léeg-léeg ay dendante yu xat yu ëpp yi léeg-léeg am na ñoo xam ne nii bëgguñu ko mën na leen a déranger mën na leen a yàqal li ñuy jàng ndax sësante yu ëpp léeg-léeg rawatina bu day jamonoy tàngaay day xaw a day xaw a métti ci xale yi moo tax ñu tegal leen yoo xam ne ku ci nekk di nga xaw a sorante sa morom nga nekk à bu baax a baax. jóg te farlu di jàng téere yàlla bi. moom alquran. mooy yoon wu jub. Witeyatu es kay alquran kay alquran moo sellu lool tey lool te neex lool yangi lool moom alquran baatam bi moo kawe bépp baat cay alquran cay alquran docteur la ñeel way gëm wi koy jàng setal moom alquran ko goronan sahobi Al-Quran Jai Al-Quran Motot sunyu bayu amarun sol kokiler Mang Al-Quran Bamu YouTube don gain dapir Jai Al-Quran Jai Al-Quran Yonen ya bine kiam qiyam dainaw tahau. Mang Al-Quran Don rambukat ñeel waa këram cay alquraan cay alquraan di ngal la maa ngi lay waxati ku tax nga yéemaat sëriñ Tuubaa ak ñoñam ñaati